dañ fi teewal njiitu réew mi le président Macky Sall pour mu defaraat ànd ci ak république populaire de Chine li nga xamante ne mooy stade Léopold Senghor ñu war cee def ñaar fukki milliards war ko toppatoo. ba mu nekk stade buy répondre aux normes FIFA loolu nag dafa fekk ci liggéey bu rëy bu président Macky Sall commencé jàppale ñi nga xamante ñoo nekk tàggat yaram gis ngeen li ñu jot a def ci réew mi ci wàllu stade waaye stade bii ñuy lancé tey du moom rek lañu ñu war a defar am na yeneen ñaar fukki milliards yoo xamante ne dañu koy def ci Elimanel Fall bu Diourbel boole ci Lamine Gueye de Kaolack ak Aliou Cissé Diatta bu Ziguinchor stade bi nga xamante moom la ñuy defar waxtu wu ñu ci li ñu jëm ci des Jeux olympiques de li ñu fi yëpp mooy li ñu manqué woon ñun sportif yi le monde président Macky Sall mu ñuy solution mooy déglu sportif yi dem ci koppar investir ci li nga xamante ne moom mooy infrastructure sportive lii nag day wone lëkkaloo bi Sénégal lëkkaloo ak république populaire de Chine. ba tax ba ñu pare ci arène nationale tey ñu ngi fii ci Patte d'Oie bi nga xamante ne mooy fii stade Léopold Senghor nekk kon dañuy jox diir rek pour mën a dellu si fii bu soobee yàlla ci présidence président Macky Sall pour réceptionner li nga xamante moom la ñu commencé muy nekk bénéfice sportif bu Sénégal yëpp